gifted and Safi. Ramadan Mubarak. Holy Records. Ramadan Mubarak. لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن mbokki internetu IGFM www.igfm.sn ñu ngi leen di nuyu. di leen euh, dalalaat jàmm fii ci seen euh, site ci seen euh, rubrique bii di koor ak Ndoye Bane tey Ndoye Bane leen li nga xam ne moom moo di conférence yi ci koor gi conférence yi ci koor gi conférence lu baax la ñun ñëpp dañoo juddu fekk ko fi nit ñi dañu waxal lu baax dañu jàngal sunu diine mais dañoo gis ni conférence yi ci koor gi koor gi conférence yi day gën di bari lan moo koy waral lan moo làqu ci ginnaaw conférence yooyu bu ma kenn yóbbu ni Ndoye Bane day diingat conférence wala day day diinag ak diin di diingat diine ji diingatunu ma diine ji kenn gënumaa nekk jullit mais conférence yi ma gis ci dëkk bi leneen la lu dul diine ndaxte li ma fiy gis ci ci ci ci ci conférence yi mooy jigéen ñoo xam ni dañuy niroo bala may egg ci jigéen ñi sax ca publicité ba ca carte carte invitation ya dangay ngay gis benn ay kilifa yoo xam ne dañuy politique dañuy jëm ci waa PDS ni leen yéen lañ ko parrainé dem ci waa APR ni leen yéen lañ ko pare ne dem ci waa PS ni leen yéen lañ ko ne maanaam conférence boo xam ni day am am ay ñetti parrain ba ñeenti parrain léegi nag pare bu ci nekk daje la nga la nga am ñëw jaagar jaagar yow la ñu nii yaakaar ni yow lañ tuddee conférence bi fekke yow du yow dong lañ lañ ko tuddee loolu day indi ay problème ci conférence yi ci koor gi. beneen bi mooy soo xoolee carte invitation conférence yi ci koor gi moo cap carte conférence soirée Pape Diouf yeeg ñoom ñoom ñoom Aline Mbaye Ndeeri ñooyam maanaam président Macky Sall lañ koy tuddee première dame tudde ko maanaam politiciens yeeg ñoom seen soo demee ci ci ci soirée yi nu grand théâtre noonu lay demee nga dem ci conférence yi ni diine yi tamit soo lee même personne lañ koy tuddee nga dem ci làmb carte làmb yi tamit sont même personne yi moom lañ koy tuddee donc ce qui veut dire que ni conférence yooyu noonu ñu nit ñi di def ci biir koor gi lépp utum dërëm utum xaalis ci nekk soo waxee ñi naan ay sopp nabi fekk sopp ñu nabi seen bopp leen sopp ak seen poos parce que conférence su fekkee li ñuy wax dëgg la ci ñoom ñoom seen bopp war nañoo mën a dangay gis koo xam ne day day day day am terrain quartier boo xam ne dafa am terrain am salle mais duñ ko def da leen leen jàllal ñu baaree tali bi naan dañ fay conférence naan dañuy dañuy dañuy dañuy wut yàlla naan dañuy wut yonent bi te kuy wut yàlla ak kuy wut yonent bi da ngay moytoo lor say say moromu jullit lor sa moromu junit nag mënul weesu nga ñëw fekk tali boo xam ne moomoo ko say waajur tabaxuñ ko fa euh, ñu alal ju ñëpp bokk nga ñëw baare tali bi lal fa teg fa say conférence ci biir conférence bi naka la ñuy recruter ki nga xam ne moom moo di conférencier bi conférencier bi ñoom ñooy ñëw jox la tem ni la kat dañ lay fay cent mille wala dañ lay fay deux cent mille waaye lii lañ bëgg nga waxtaanee ñu ko su fekkee lu jub lu baax lañ doon wut dañoo waroon a bàyyi conférencier bi ci boppam indil leen tem mais ginnaaw nag conférencier bi dañ koy tënk dañ koy wax loo ni ko lii nga ñuy waxal en général sax conférencier bi du wax lu bari lépp ay politique lay doon ay gërëmante conférencier bi ay 10 minutes 30 minutes lay wax conférence conférence ba jeex te soo fekk conférencier bi ci woppam ñi nga xam ne ñooy animé conférence yooyu maa ngi leen interpellé ñëw ni yàlla laa fi toogal ak yonente bi ak wax waxi wax yu baax ci biir koor gi nga ñëw jàkkaarloog ay diryanke yoo xam ne na nga xeesal ba xasu xunn nga mën a wax ci ñoom conférence ñoom yow ci biir baas bi rek euh, euh, doy na la conférence nga nekk fa dañuy wax ay xare uxut ay xare badar yoo xam ne ba mu xeweeg léegi boobaak léegi ay junni junni at la te nga nga mën a jël tem ci biir ci biir bâche bi bu tax ñeme woo jël ci biir tem ci biir bâche bi parce que soo jëlee ci biir tem bi ci biir bâche bi wax ak ñoom ci biir bâche bi su ne ñoom duñ la jël donc nit ñi ñu conférenciers yooyu nañuy xool ci seen diggante ak yàlla ñu ñu ñu ñu def li ñu def li ñuy def beneen bi mooy état bi war na jóg ci ñi nga xam ne koor gi suñu ñu jóg ku baare tali bi ñu tas tas tas tas conférence ba ñuy dugg ci centre socio culturel yi di fa conférence wala ñuy dem ci yenn bayaal yi di fa conférence te bàyyi mbedd mi mbedd mi du pour conférence du pour ngénte du pour pour pour pour pour def ay ay ay ay mariage léegi nag soo gisee duñ ko tere mooy conférence yooyu ni ngi koy dégg ni ngi koy tuddee monsieur le maire bi nekk ci koñ bi monsieur le maire bi waroon a tere baare tali bi moom la ñuy tuddee conférence bi su monsieur le maire boobu teree ni kenn du fi baare kenn du fi conférence ci kaw tali bi monsieur le maire ma ngay calculer ah su ma ko teree kat élection yi di ñëw waa koñ bi dinañ ma mere duñ ma woteel moo tax ñuy ñu leen di bàyyi ñuy baare tali bi su boobaa dañuy lor lu bare bari imaginer ba ngoo ngoo woor ba ngoon euh, euh, wàcc war a ñibbe di ñibbi da war a dem sa kër ñëw ba dugg ci digg sa koñ fekk ñu baare tali fekk fa ay jeeg yoo xam ne xamoo fu ñu jógee ñii sëy nañ ba tas amuñu porte amuñu place nekk fa naan dañuy dañuy dañuy wut yàlla ak jënñu joreen soo bëggee ñu naan ay soppe yëpp sëñ Babacar Seck sopp Sëriñ nabi fekk soppuñu kenn seen bopp ci boppam lañ la ñuy te encore conférence yooyu su tasee souvent day am ay ay yu ciy am ay joxante rendez-vous nga ay yu garaaw ñooy am ci genre conférence yooyu li ma lay wax nii lu leer la très rarement ngay gis conférence am na ci ñoo xam ne nag ñu baax la ñu dañuy def seen i conférence si ses dañuy def si ses def seen conférence déranger wuñu kenn fattuñu kenn mais ñi ma jéppi te ñu soof ma lool soof ñëpp soof askan wi mooy ñii baare tali bi weeru koor wu jot ñu baare tali bi naan dañuy conférence dañuy wut yàlla ak yonent bi fekk loolu loolu ñuy def euh, du du dëgg du yoon beneen bi mooy da ngay gis xaalis bañ cey am fu muy dugg chaque année nga bind les même personnes lettres ku ci nekk joxe la ngay jo la la la ngay joxe xaalis boobu fan la ñuy jug dañ koy mujj loterie loterie ko pour billet màkka loterie pour billet màkka boobu daggan na wala dagganul loolu oustaz yooyu lay leen def conférence yi war nañ leen a war nañ leen a tontu ci ci loolu. beneen mooy ma ñëwaat ko ci parrainage bi dañuy jël affaire ba parrainé ko waa APR bind ni nii nii maanaam président Macky Sall lañ ko parrainé. wala ñu bind ka ni ni nga ni euh, Moussa Diop lañ ko parrainel wala ñu wax bind ka ni premier ministre lañ ko parrainel dem PDS daan ni président Ablaye Wade lañ ko parrainel dem PS daan ni euh, euh, Khalifa Sall lañ ko lañ ko lañ ko parrainel yéem ñëpp suñ ñëwee ci baas bi ku nekk yaakaar ni yow conférence bi sa conférence la yow lañ ko tuddee fekk ni yow ay dóor la tuddee nañ ko lu mat fukki juróom fukki nit ak juróom yoo xam ni euh, ku ci nekk ak la ngay joxe te gisee soo gisee jeeg jooju day am groupe boo xam ne groupe bii mooy dem ca parti socialiste groupe bi ñooy dem euh, APR group bii ñooy dem ñooy dem PS noonu la ñuy séddaloo léegi nag euh, su waa PS ñëwee groupe ba ñëwoon ci sa bureau indi la lettre bi ñoo lay gàttandu soo APR ñëwee groupe ba ñëwoon ca bureau APR ba indi woon ba ñoo lay gàttandu nga yaakaar ne yow nag yaa rey golo ga te ci soo seetloo fauteuil yi benn lay doon ay ngandi di fauteuil li ñuy tegal ñetti wala ñeenti pare yooyu ñuy niroo fauteuil parce que suñu gisee suñu tegee lépp ay si jël benn fauteuil bu mag teg ca kenn ka ca toog kooku lañ ko pare ne soo mee xoolee conférence yi ñetti fauteuil yu mag wala ñeent la ñuy rangale teg ko su ko defee ku ci toog rek da nga yaakaar ne yow lañ ko tuuti fekk ay ay ay la donc kilifa yooyu di joxe seen xaalis ci conférence xam ni dañ leen di nax di lekk seen xaalis te su élection jotee du leen voteel ñooñ di conférence ñëpp ay dóorkat lañu ñoom ak ñi ñiy joxe ndog yi ñoom ñoo yem àtte te su boobaa lépp dërëm buñ ci lekk dañ ko dañ leen ko lay lay layoog layoog suñu borom donc ko koor gi liñ ci war a def mooy euh, jaamu ci yàlla euh, suñu conférence ñu dugg ci biir jumaa yi conférence suñu conférence ñu dem ci CCC yi conférence wala centre socioculturel yi conférence te bàyyi surtout mbedd mi te bàyyi wutum dërëm bi ci conférence nit ñi mën soo demee ci dans les villages nit ñi dañuy conférence ci vingt mille francs dañuy conférence ci quinze mille francs loué ay rajo cinq mille fay ki nga xam ne mooy conférencier bi dix mille ñu leen ay baas ñu toog conférence nga xam am fa yàlla am fa yonent bi am fa lépp la nga xam ne la nga bëgg mais conférence yi ma gis ci grande ville yi nekk fi Sénégal c'est autre chose leneen la lu dul euh, jaamu yàlla kon boog sama gars yi euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax euh, di leen jox dox daje incha allah ba beneen yoon ci seen ci seen rubrique Kooru Ndoye Bane di leen sant bu baax a baax internautes yi nga xam ne ñooy suivre li www.igfm.sn euh, ba suba ak jàmm Gifted and Safi Ramadan Mubarak Golly Records